Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Tiaroy Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Mamadou Lamine Diop mi ñu bëgg a jox kàddu mën nañ leen a bañ a présenté mooy kan waaye bu fekkoonte nii tey amul ben adjoint au maire bu fi toog wala ñu mën a wax ne amul ben adjoint au maire bu fi toog. dañuy wax ni moom mi mën naa représenté Mamadou Gueye ci détail ci côté yu bëree bëri. kàddu yi may yëkkati du gudd. Talla jërëjëf. Asgor waxi démbam su méngoog waxi teyam jàppal gorongoom dafa ñëw ci man waxtaan ak man laaj ma xalaat ndax yàgg na maa magoo ca jamonoy Cheikh Dieng ba tey ne ma dama bëggoon a liggéey ak président Modou Gueye loo ci xam. ma ne ko man de amul kenn koo xamante ni amoon na maqaama yëkkati ma ci siis bi ma toog liggéeyloo ma ci biir commune bi ndax bawoon naa politique depuis 2012 waaye gis naa ci Mamadou Gueye loo xamante ni gisuma ko ci kenn ci responsable bi ndax man soxlawu moo ma jox dërëm soxlawuma moo ko ma jox ñaar dërëm xaaruma lenn ci kenn yàlla rek laa yaakaar kon ki may àndal di liggéey ak moom la ma gëm di ko séntu ci moom mooy mu yëg ma xam man may kan suma yegge rek matale na Modou nak kep ku and ak mom yegna la faale na la fulal na la. maa ngi wax nak ci kaddu jigen ñi jàppale si maire tubaarkàlla macha allah jàppale ko ndax suñu jigéeni gox yi liggey kat lañ ñu nango liggey lañ ku len jappale ñu liggéey te kala nak ñoo ci ginaaw Ndey Njaay ak Talla bu nu wo rek ñu ndax man bayyi won na politique sax nangu moo toog ku ma woowoon daaw ma dem fenn waye nak ñoma ci dugalat mom day jaay sama doom ju baax du def dara ma yëgul may wax nak ñu jàppale nak wa gox bi danoo def mobilisé dañu mobilisé def déplacement ak déplacement ñëw jàppale si maire ñaanal ci ko diko sant diko ko ngir yaram ak tegginam ak pullaam ak faydam ak yaram xalaat bu rafet bii muy kilifa kàcceer bi si ñoom la jógee nu waxtaan seeg taala nga xam ni taala day seen doom waaye loxoom dafa set taala soo ko gisee muy dem bu laajte si lu baax rek lay dox lu jëmale quartier Minam kanam képp lay dox nit ki mën ngaa xew la loué siège loué base mais nit ñi kenn mën leen a loué ñii taala yëkkati ak tey dëkk bi nu mu xatee ak yitte yu bëri waaye si yow la kon daal ñu ngi ñaan lii nu mbébét muy association bi nga xamante ne ni ñu ngi ko tuddee kosom man soo nee kosom rek damay defe ni soow la waaye lépp xéewal la lim si bëgg dëgg si mbibét yàlla ko si yàlla defal nekk conseiller municipal génne ci wàll bokkoon ci réseau de femmes fa action et développement bokkoon ci ñu ko doon doxal bokk ci comité comité de soutien aux actions du maire ah di liggéeyal nak sama gox bu baax baax koku yaakaar na dama ci gëna xouss ndax man lool rek moma ñor sama gox moma ñor jidde caare ko moma ñor ah maa ngi liggéey nak ak maire ndax bu ma xasse ba nek comme conseil municipal la kon ma ngi koy liggéeyal légui nak dama ñëw gën ko liggéeyal gëna japp ci mom gëna a ñëw ànd ak mom talal ko suñu suñu loxo loolu moo di leen wax nag ñun maa fi taxawal jeunes te maa yor kàddu jeunes filles yi ñun jeunes filles yi. waaw dañoo mënut jàppale. ñun jeunes fii dañ ñoo war a jàppale ndax ñun ñu ngi taaba taaba di defal suñu bopp ñu ngi ci natt yi ñu ngi ci kees yi ñu ngi ci yeneen a yeneen kon jeunes filles ñu mot a dimbale lañ parce que ndaw moo yor ëllëg réew mi jigéen da koy yor góor da koy yor kon nag jigéen ñi tamit. lépp ñoom na kon nañ jàppale seen fii jigéen ñi dañ leen a war a jàppale lu am dañ see war a gis seen bopp parce que jigéen ñi ñoo fi nekkal ñëpp waaw tey boo demee ci kër yi tey jigéen lu muy def góor du ko def kon nañ jàppale jigéen ñi nañ dimbali jigéen ñi te jàppale tonton Talla parce que kuy raam di la bokk su amee taxi dina la si dugal tonton Talla yoru ay milliards yoru oto yoru dara waaye xolam rafet na xolam yaatu na jappale na nit ñi te yéen ñepp jamm billahi wallahi wa ta'ala mo lu gey xom nako mais wallahi mom la woote sama carte bi parce que la moo tax olof day wax ne nit ki prinsa jëfam day jiitu jëmum amana mom jëmum jëfam jiite suñu jëm ka jëfam. kon l'essentiel moy nit ci lepp loy def parce que nek sa gox mo la ñor ñun jëni na nag dañoo ëppale woon la moy maire la moy maire ñoo ëppale won lolu parce que ñoo yaakaar ne maire bu nga falé rek da ngay tok sa kër muy ñëw di defaral sa koñ maire boko falé falee ba pare day tok parce que maire bi ñun la fi nekkal kon lañ ko war a toog fu mu nekk di maire la lay liggéey lan la léegi loolu nag lii moo ñu koy may li ñu koy may mooy bu maire woote ñu ñëw di waxtaan ak moom di jàkkaarloo moom di ci wax suñuy soxla ndax soxla boo ko waxul du faju mu nekk koo xamante ni tey jii nii maire bi mairie Djiddah Thiaroye Kaw tey bu demee ba yegg fii ba nga xamante ni tey monsieur le maire Mamadou Gueye liggéeyam yombal na ko tey amaana moo am na liggéey bu am importance bu mu ci def parce que tay dafa nekkone ko xamanteni man dama daan jugge suma keur di déplacer wu di dem ba keuram ñuy xey di ñew fi mais bu gennan keuram 9h bala muy dugg ci mairie bi fini 17h da fay jot. bala muy ñew amane dina wër de jaar ay kaw yépp pour service su mairie bi mu nekk ko xamanteni homme de confiance du docteur Cheikh dien la woon. mais dafa doon nekk ko xamanteni da daan jël alalam diko def ci ñoo xamanteni tay amana sax gennewul ci gaf ak mairie bi mais ci alalu bopam la daan am.

mais ñu ngi koy soog a gis mooy Mamadou Gueye maire bi nga xam ne xam na social te maire yi fi jot a jaar yëpp boo leen xoolee at yi ñu fi def ak moom un an yu mu fi jot a def réalisation yu fi jot a def amul benn maire bu ko fi dafa gub man nag xam nga li ma bëgg monsieur le maire sant naa la yow mi nga xam ne li nga waxoon te def na ko gor la en cent pour cent ndax di nga waxoon ne bu ma yeegee incha allahu rabi délégué quartier yi ñu doon fayeeku danaa leen yokkal loolu man maa koy maa ko yor ñu doon fayeeku dinaa leen a yokkal ñi nga xam ne dañu am décision ak arrêté fayeekul dinaa leen fay man je suis le premier jusqu'à la où je suis demu laa jox sama xam loolu ma ci miinu ma la woon de mais da nga doon liggéey ci lëndëm gi bu garaaw la nag booy bii <laughs> si le maire bii ak garaaw waaye ñuy sant yàlla waaye lu muy garaaw garaaw yaram foo ko takk passé na billaay wallaay taala yàlla tax may wax musuma defal dara musuma ko ñaan ñaar téeméer musuma ko may kon tollu ma fu may tagga ji mais jikko ji ma xam ci moom laay wax maire jël lépp tey jii bu fi maire nekkul gis nga toog kii sax moo gën junni yoon sax toog ak maire ma wax leen loolu tey te loolu lu may lu ma xam la monsieur le maire ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ànd bi nga ànd ak le maire Modou gay yalla na ko yàlla dëgëral te mu nek njëriñ moy tay li taxaw ni fele ku ñu bureau bi wax day leer suma amé xalaat bi man duma ma lool loolu déedéet bu nu fi joggé maire wax ñepp dégg bu ñu delloo ñu fal bureau bi mais mel na ne am bureau ndax ñepp a ci liggéey bi la judd bi mu judd bëgg nañ mu dund lu yàgg damay ñaan yàlla yàlla na yéex su ma fi jógee lii mën a barkeel mën a dem te incha allahu ci taxaw lu mu war am ci ay këyit dana ko am Andra Fall waroon na fee nekk Touba Pikine ci sa quartier ba ci la bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne am empêchement ndax dimanche mais yaatu ci ndax ko doon liggéey kon dama bëgg ndey groupement yi fi nekk danañ leen fédéré danañ leen organiser ñu dugg ci mouvement bi après danañ la wax mouvement bi ñaata groupement ñoo fi defe naa yoo looloo war a yombal sa liggéey parce que tey boo duggee ca quartier ba nga financé fa fukki groupement ne fa nga financé juróomi ne la a juróomi bàyyi nañu la mere nañu la bu mere nañ la kon bu duggee ci mouvement bi rek ñëpp adhéré ñëpp ñëpp fédéré foofu defe naa foofu lay gën a yombal seen liggéey lu ngeen war a defal mag ñi bu duggee foofu dana yomb lu ngeen war a jàppale jeunes yi bu duggee foofu dana yomb lu ñu war a jàppale daara yi bu fa duggee dana yomb ak beneen ak leneen ak leneen loolu mooy solo mouvement bi képp ku ci bokk nag ñii da am carte de membre ndax bëgguñoo tàllal loxo carte de membre bi bu dee jaar téeméer ñoom Omar mii 1000 francs lañ leen koy joxe. ak ñoom Kalidou yooyu bu dee jàpp 300 xale yu ndaw yi nga xam ne tey ah li ñuy yor di ko jënde ay mayonnaise ak yooyu dañuy leen ko jaay téeméer am ci ñoom 200 dugal ko ci mouvement bi. loolu mooy fondement mouvement bi mouvement bi mën a collecté am lu muy doxe waaye nag bëgg nañ ngeen jàppale mouvement bi de ndax lii diis na trop nag ah li ci des mooy sama diggante ak Modou Gueye. lolu monsieur le maire lolu jërutu la wax li rek feeñ na maa ngi moom guddi maa ngi moom bëccëg lu mu soxla tey danañu and ak mom inshallah liggey ci bañu am ci ndam man di Thiaré ko la bëgg ah la laa nekkoon de sama parti waaye nag a ah, bi lii amee bi lii amee ba tey ñu yegg fii ma am ku ma àndaloon ci PDS base bi nekk base bu PDS xëy na ba mu amee lu ko naxari dem na xëy na man ba ma amee lu ma naxare génn naa ci moom waaye nag du ma ŋàññi déedéet du ma wax lu ñaaw kenn du ko dégg ndax luma am luma nakari amon na fa luma neex kon lama neex la lay jele muñu ko lima nakari mari ko dajje bi dajje buñu wara am yaakar ndax dajje bo xamni gis nga ci ay mat gis ci ay jigeen gis ci ay ndaw dajje bu yaakar la kon taale yow mi nga xamni sababu dajje bi ci yow la joge ñu lay ñu bu baax di la jaajëfal te di la jox ci bi la yalla jox di am mbégte bu baax dajje waat ak yow yàlla dogal na bi ñuy nekk ci conseil municipal bii dangaa féete fee ba féete fee waaye dara ñaaw woon kon tey jii soo dellu si waatee nii ñëw da ngay ànd ak monsieur le maire dañ ciy am euh, mbégte bu baax te fas yéene laa dalal jàmm nag nga dellu si waat ci sa biir kër. Euh, jotale le maire Mamadou Gueye ndax wax dëgg yàlla moo ko woon teewal boppam recevoir leen boppam waaye yoon jëmul si benn. yéen a ngi waajal assemblée générale boo xam ne dañ koy bokk waajandoo su boobaa organisation bi monsieur Kanté ñun ñoo koy bokk bu soobee yàlla. ndax tey son excellence monsieur le président la république moo ko yónni moom fu mu ko teewal moo tax boobu leen ñu ngi échanger ci ay message waaye jàmm ak pexem yàlla dogalam. monsieur Talla Kanté wax lu am solo muy réalisation yu tàmbali di ñaan ñu bàyyi xel côté bi waaye monsieur le maire dafa.

terrain synthétique amul si banlieue bi ma ngay réaliser bi gën a jege muy terrain moom sa réew terrain multisport la koy def di fan yi ñooy day gis def pose première je pense que monsieur Kanté monsieur le maire fii la tàmbalee dafa fàtteegum fa mu dëkk waaye foofu aussi bu fa ñëwee ñu xam ni jàmbaa ñëw na fa en tout cas ñi leen sant baax di leen gërëm vraiment di rafetlu euh, taxawaay bi ndax monsieur le président rek da ko sas leen ko sas mooy mu teel ko le département de Pikine kon bu fekkee da nga àndoon ak Cheikh Dieng ngeen nekk mu rog soow wala soog suukar jàpp nañ ndey moom euh, ka nga àndoon kaas rek la waaye soo mag suukar saan fii ba ñëw àndaale ak délégué de quartier yi àndaale imam yi àndaale ak ak euh, bàjjenu gox yi àndaale ak euh, ñi nga xamante ni sax ay conseil municipal lañu woon ñu nekkoon ak moom kon je pense foofu moom dara des fa indaale nga ñëpp kosam aju waaw kosam bu neex na am golo yaa am lépp loolu la indaale kon ñu daal seen xel baax a baax ànd bi incha am ànd naw lay nekk ndax monsieur le président Modou Gueye ku ànd ak moom di nga xam ànd nga ak nit ku baax ànd nga ak góor ànd ku xam teranga ànd nga ak ku mën a jàppale nit kon na seen xel dal soxna Ndeye Niang wax na ko jigéen nañ préparé seen i carte d'identité financement yi mi ngi fi lu disponible ba pare la daf leen jéego ñëw ci moom fii ak lu matul 15 jour incha allah kenn ku ne di nga am si loo mën a jàpp si liggéey formation yaa ngi lépp gën a mën a jot ay vidéo xibaar abonneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification